يا بر يا غفور يا حليم إني خمر تائب مليم إني كسول نائم أقول يا مالكي يا خالق الأنام حمد هواي خلل أم منامي يا خالقي يا كامل الصفات لك اشتكيت كسرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لغيرك الركون وأن أطيعك بنهج المصطفى سنته البيداء يا من اصطفى يا غافر الذنوب يا قريب إني عبيد ها هنا غريب لهب ذاك ولإخواني جميع سعادة الدارين حقا يا سمير هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاه القاسم ولكشفا ليل الهوى البهيما بحرمة المحبوب إبراهيما وليسق خير حلال طيب وخير جيران بحق الطيب وصفني في باطن وظاهر وارحم بي الخلق بحق الطاهرين ورقني ترقية خفية ببنتي رقية الصفية وأولني سعادة لست أرى شقاوة من بعدها أو ضررا وتسبقا حبك في فؤادي وحب خير الخلق في تمادي وحب آله وصحبه جميعا ثم تهب كل مسلم مطيع يا ربنا يا ضلعتا يا أجبي توسلي بالمصطفى المنتخب ثم عليه صليا خير صلاة تقودني إلى ملاقاة الهدى وتغرني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم واغرني بطاعة وتكفني عن الماسي وجميع الفتن وتخرج الأغيار من فؤادي وتدخل الأنوار في هادي وكن معيني على ما يصلح وتكفني جملة ما يقبح واكرمي دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وابني اليقين والعرفان والذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العبادة والكسوة والعيان والسعادة وأصلحا أمة خير مرسلين وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك سمعا في كلهم ونجهم وتف بهم واغفر لهم واجعل يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا في تمام واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي داعنا بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرد والمندوب سرا وعلنا واجعل مماتي راحة لي من نصب ومن جوى ومن غرام ووصب وعمل اجعل كله مقبولا أكون مقتدا مقبولا ومسكن اجعل مسكنا مباركا وسيرا سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار التقى والعلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة عن هاتك مريد ومنفعا لكل عاد مسلم ومدفعا عن كل عاد مجرم وحجة لمن بضعف ارتدى وحجة على مخالف قدى ومطلبا لطاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل اتباع ومتركا لسبل ابتداع ومسكنا لجلب كل خير ربنا ما خلقت هذا باتلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أغضيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا من بربكم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 ونعوذ بها حسن الخاتمة اللهم بحق جمال عصمة ذاتك صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخير خديمه واغفر لي ولوالدي ولكل من له حق علي ولجميع المتعلقين بي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وهب لعبدك وخديم رسولك ما نوى لنفسه بلا شيء من الآفات والأقدار في كل شيء بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام dafay waxtaan woo xam ne dañ ko baaxoo di amal di ko waajale màggalu Sëriñ di ko def ci kër njabootu sëriñ Souhaïbou yu jigéen yi ànd ak daayira bi nga xam ne ñooy jësbul xulub di turandooy sëriñ Souhaïbou buy ak daayira tasawudu sixaar indil jataay bi tey soxna maam xarit Mbacke bintu sëriñ bu Mbacke xam naa soxna si dafa waxoon ne naa naa leeral loo xam ne da koo ñor lool muy matlabul fawzayni bi nga xam ne sëti sëriñ Souhaïbou yii nga xam ne ñenn ñi sëriñ Souhaïbou moo jur seen way juru góor ñenn nañu sëriñ Chouaïb bu jur seen way jur wu jigéen ñoo ko doon jàng nga xam ne kenn raxu leen Matlabul Fawzayni bi dafa bokk ci xaside yi nga xam ne sëriñ Chouaïb bu da leen a fonkoon lool yaakaar naa mboolem ku jaar ci daaray tarbiyaam wala daaray alxuraanam xam nga fonkeelu sëriñ Chouaïb bu ci Matlabul Fawzayni loolu yi tax sëriñ soxna si fonk ko lool ngir fonk ko ko sëriñ Chouaïb bu fonkoon waaye ba ci daaj bii ko sëriñ Saalihu doon daaj ànd ak rakkam yi sëriñ Chouaïb bu Mbàkke moo ko génneel boppam mooy daaj boo xam ne ku ko dégg xamne daj bu yalla la daj bu dar ray aduna rafut mom la soxna ci mu ñor ko lol mo xone bu ñewé bala ñoo tàmbali dara nañ ko lemo jotaay bi lol ma waral ñu joxon leen ñu doon jang Matlabul Fawzayni bi ñi ngi ñaan mbollem lu sun borom def ci mbotum khassida gi rek ci barkam seigne touba yalla na law ba tek mbollem ñu fi tew ci barkam Seexul khadim kon ngir baña guddal dañuy jébbal kàddu gi sëriñ Mahmoudan Mbacke ibnu sëriñ Abdul Ahad Mbacke mu tijji jataay bi ci ay kàddu ni mu ko baaxoo defee ci jataay yu mel nii. ñu ngi nuyu bokki jullit yi fi daje yëpp rawatina bokki taalib yi di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi sunu kilifa gi dendal ñu di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi. sunu sunu kilifa yi nu dendal di Cheikh Mouhamadou Fadal mu nga xam ni mooy sunu kilifa nun ñëpp nuy wax ci turam ak ci kàddoom di ci ubbi jataay bi li ñuy jëkkee nag mooy bég lool ak xol bu set ci ni nu fekkee jataay bi ak li fi fekk ndax yàlla dafa def ndaw yi doon jàng xasida yi xasida ak Matlabul Fawzayni gi léegi noonu ba ñuy fekkee ci kër sëriñ bi ñu di ko jàng waxtu guddi ak gàmm yaakaar naa booba ñoom gëneeguñ sax àddina moo tax bi ñëwee fii nag moo tax bi ñu ñëwee fii nag moo tax bi ñu ñëwee fii nag fekk fi lu mel nii mu delloo nu ca démb fàttali nu it lu yéeme yéeme ca lan ca lan daan ca fekke ci sunu sëriñ bu tedd boobu ci bët bu set ñu di ko fekke di ko dund ak moom moom nag dana yomb ci nun ñu wax ci moom dana jafe ci nun it ñu wax ci moom li koy waral mooy nenu dementeeg moom waaye nit su la yaree nag danga mën a seede li nga dund ci moom mu fàttali nu lu baree bari delloonu it ci yar bi sëriñ bi defoon ci wax naa léegi nag ni wax ci sëriñ bi lu yomb ci man la waaye lu jafe ci man la yomb gi ci man mooy dund naa ko yaroo fa xam ci moom lu wér a wér loo xam ne mat naa xam maag ña ma fa bokkoon nekk ñëpp ci sëti Serigne Touba yi ak taalib yi loolu nag danaa ci seede aslëf bi ci jëkk mooy na mënu yare woon euh, man ku ci sant yàlla laa ndax ki démb rek bi may jóge ci sama tool yi di ñëw ñi ma àndal di ñëw maa ngi leen koy wax ma ne leen yar de foor na ci nit ndax tey jii bi ñuy nekkal sëñ Souhaïbou diggante timis seggee mësuñu koo wax tuddu baatub la ilaha illallah lan dan def seigne fallu mi sédélé ci loolu ba may déparé sama tolé di ñew donga ya fa ne saxal na fa loolu ba nga xamni digënté mi sa kenn du fa wax tuddu yalla ba mu ne yare won moom def loolu nak ma ngi ko wër ci dama mas di tukki tagu tok mom mo wama ma ñew mu ne ma disona na ma ak Abdou ba bàyyi na la néna na la bàyyi nga dem néna na jël ci samay nit ak ak nitam bolé leen ga and ak ñom mu joxoon ma dénk boo xam ne nag lu ma bàyyi xel la ndax keroog ba may dem ci saal bu mag boobu laa tàggoog moom du ma ko fàtte ba ba ni tukki fu ma fa duggee rek dafay mel ni lam doon waxanteek man maa ngi janoog loola mu ne ma kon nag mu daal di woo maam Balla bu sëb mu dikk mu ne ko demal andi montar mu dem indi mu ne ko demal andi kaabil mu andi kaabil mu boole itam sa yaada andi li ma sëñ Abdou nag waxoon na ni naa laa bàyyi nga dem weer waaye nee woon na nag naa la dénk bala ngaa dem réglementaire bi jox ma ak mag ñi ma war a àndal mu boole mag ñoom xamal ma ni ma ba ba ba ngay war a dellu si waxtu soppeeku fu fi waxtu julli jote na nga jiitu ci kanam mbooloo mi jiite leen kaamil alxuraan bi waqaf bi bu bu mbànk ni ma ngal Ngalla Mahmoud na nanga fexe ba bu nit di gis teew dara lu muy xebet tegaat ca ni ma ki tax nu dinu wormal muy sëriñ bu mag kenn mënu ko woon a séen ci diine diine mooy li nga xam ni ku la ci raw raw na la ba fawutu dootoo ko jot koo ci rawit raw koo ko ba fawutu dootu la jot loolu lan dénkante woon keroog bi may tàggoog moom ci tukki ak yeneen yoo xam ni wa fi mahali umari maa la yóbbee du ma ko sañ a leeral ma indiwaat beneen seede bi ci ëpp solo ki ko seede woon ci moom nekkul ci tarixa murit faranu fekk alxaaji abdul asis keroog bi soxna fat jaxate wàccee liggéey mu ñëw kër sëriñ abdul ahad jóge fa ñëw kër sëriñ Sohaybu faranu fekk kéro bi ko sëriñ bi recevoir baat yi mu ko njëkk a wax mooy sëriñ bi di fu ma la laajtee ñu ni ma yaa ngi ci jàkk ji yow de wóor na ma ni ña tax suñ borom di wax àlla allasiina in makkannaahum fi l ard aqaamu salaata wa aatawu sakaata wa amaru bil maaruf wa nahu anil munkari wóor na ma ni yow bi bokk nga ci ñooñu te ñooñu mooy ñu yàlla tànn ñu yàlla gën a bëgg ba ca toppaat bët dem bi nettali woon naa ko keroog bi ko Alaaji Ari Touré di seet si fekk xoratul ay ni bi mu taalif ko alhaaji aadi entré ci hôpital Lukke gis téere bi yër ko jaar ko ci suñu am am satum daaru musti ni ko ki taalif téere bii de bëgg na maa wala renteeg moom mu dox ko seen diggante ba mu ñëw yandu si ci kër sëriñ bi keroog ba mu fi yandu see sëñ Abib la ko booleel mu yandoo moom sëñ Assane Bousso sëñ Cheikh say ilmaani daaru Xudus keroog bi nu yendoo ba waxtu ngoon sëriñ bi woonu nun ñi ne woon ci kër gi ñëpp di doomi mbokkam yi nuyoo la moom toog ba ñu nuyoo ba bi mu ni ko sëriñ bi melokaan bi nekk ci yow de ñi nga ma nuyoo leen woon na ma ko ndax sa doom yi mbokk yi rek nga ma doon woon kii doomi sëñ Abdou Lahad kii doomi sëñ Murtala la kii doomi sëñ Abdou Xaadir kii doomi sëñ diw la kii doomi sëñ diw melo bi ne ci yow ba sa mbokk yi fab seeni njaboot jox la ko koo nawut jikkoom doo fab sa doom jox ko ndax boppam boppam la jee def ni ko nag sëriñ bi teral nga ma tey jii teraanga joo xam ne nag du lu ñuy suur ndax li nga ma tarale mooy ci xam-xam nga ma terale mooy ñii nga ma booleel ma yendoo ñoom tey tànqee naa fi loo xam ne su ma dundoon ba génn àddina te bokk ñoo ñoom jotaay loola du ma ca àgg ni ñu yéen ñii nag danaa leen dénk yaa baax baay jege na waaye nag yaa baax moo gën a jege seen baay yi nag baax nañ ba noppi kon nag fexe leen bu baax loolu la ñu dénkoon keroog ci kanam sëriñ Soxayb ba ca toppaat lépp indi rek jikko yi li ñu mën a feeñal ci mbiri sëriñ bu tuuti dafa am benn taalibe boo xam ne dañ ko jàpp ci forootam bokk ci njabootu sëriñ Soxayb bu dafa dem àllaaxira du ma turam keroog bañ ko jàppee forot te sëriñ bi yónnee ci Sëñ Abdou Lahad ci Touba ndaw ya fa dem seeti ko dafa am lu leen Sëñ Abdou Lahad waxoon da ni woon ittey addina bu leen ko soreete ci noppam suñu changement su ngeen xamoon fa mun féeti du ngeen jël ittey addina di ko sol ci noppam ku ci amati ittey addina dikkal di ma waaye moom bu leen soreete ittey addina ci noppam ba ca toppaat it bii bi mu agsee léegi sama mbaxal yi mi ma sol ndigalam laa ci am ndax danoo war a roy waajur yi rek ndax sëriñ Soxna ba daf daan wax ni sëñ Abdou de ba ma koy def kilifa xawma luy kilifteef ba ñuy bokk di tëdd ci lal boo ko booba laa ko defoon kilifa kon loolu yéen xale yi su ma ko dee wax jataay bi dafa war am jariñ ngir ngeen roy ci ngir ngeen roy ci ëllëg noonu ña fa nekkoon ñëpp nag di njabooti sëñ Tuubaa yi di sët yi ñoom ñëpp laa waxaaleel ndax ñun ñëpp fu bokkoon nekk te ku ne xam na nam doxale woon ak noonu lépp lu mu daan digal ci àddina moo ci jiitu ñu teg ci suñu bët noonu la ñu yare woon ci ci ci melo yëpp waxtu yëpp mooy jiitu nga topp ci gannaaw muy muy jëf ngay gis ngay roy ca loolee nag noonu ña fa nekkoon ñëpp tey ji keneen koo kenn koo ci gisoon rek def na ci yow loo xam ni sa wajur wala jur sax def ko ci yow man nag dama ci am lu wér lu ma sañ a wax ndax sëñ Abdou daf ma bindloo kaamil ma bind ko andil ko waxtu yor yor sa mam yow mi Alaaji Muur Maamu ne yalla dogal na mi ngi tok bis bobu seigne Saliou wara a dogsee ci mom weeru koor la bam ko yëree ba nopi li ma Mahmadan ma moo ne ma juréel rek la am ci yow li ci des lépp suñu sooy boo ko def ci yow kii la dimbali ba nga man lii bu ko yemaleeg dara taloo baax la jox ko loolu la ma dénkoon ci sama digg ak sëriñ bi man nag ndénkaane googu li muy dëggu dëggu ci man it cofeel yàllaa koy sàkk yàlla lay soob mu jël sofeel def ko ci diggante yàlla lay soob mu jël cofee def ko ci jaam ci diggante ak kilifaam wala ku mën a doon nit mën na laa doon sa kilifa te cofeel nga war a am seen diggante sax du jaam waaye yàlla moo jël sama xol fab suñ soñ bi def ko ci ba mu jax tàkk rek loolu coobareel suñu boroom la loo ñoo xam ni sante naa ko suñu borom te wa taala ndax tey jii lam nu doon dénk ak dinu ca yare tey jii képp ku jaaroon ci kër ga tey jii am nga ko njukkal loo xam ne mënatoo koo fay noonu ña fa bokkoon ñëpp tey kenn ku ca nek ba def ba la fa sa wajur di andi xamé wo xamé wo dara te ba ngay ci kër gi di delu sa kër wajur lepp lu di mat wala xam-xam wala yar yo nga ko te bañ fay dik andal ñu ko fa won nak moo loolu lépp nag def ci noonu kon muy bar bo xamné nak ci suñu ak sëriñ bi ci ñun ña fa jamonante won ñëpp Bar buñ mënta fay la bor mën ta fay nak ni koy am lo am lo am sanni ci loola ca lanu ca ca lan lan lan loolu lan daan gis ci moom mu di ko doxe ak yarum njabootam ak dimbali bindéef yi ak it dimbali jàmbu lot ñu newoon ci kër gi xam nañ ko su ko daan def guddi la koy def te du ko def ci oto sax nit di xam dangay toog sa kër rek lam lay dimbalee fekk la fa te ñaar du yëg ma sàmba du yëg kenn du yëg noonu loolu jagleeg suñ tubaale ci moom gom ko tegle leen koo xam ni nun ñi nga xam ne nun la yàlla def muy sunu wasila sunuy wajur déggoonu ko nu fas yéene tekki ëllëg ci gannaawam sant nañu yàlla bu baax a baax ci cër bi nu yàlla jox di leen ci sant la yàlla tam yéen sët yi nga xam ni lam doon lëggéeyal yàlla yàlla mi ngi koy feeñal ci yéen ndax lii ngeen jàng fii tey te nu daan nekk ci kër gi di ko fekke ñu di ko jàng tey jii ay sëtam toog fii yo xamne mo len meñ ken ku ne mo meñ sa wajur ngeen taxaw jàng fi kon wo non amna yakken ci ni li ni mébét ci bis bi bu bisu Cheikh Souhaïbou ak ci guddi gi ak ci ñaan gi lepp seigne touba dara ko nako te fi lañ ko tek ci ci ci sunu pass pass ñi ngi sante bu baax nak di gëreem ñepp di ñaanal ñepp Cheikh Cheikh mo Fadal ñi ngi lay ñaanal yalla ndax seigne Abdou Lahad ak Sëñ Souhaïbou du dul ñaari jëm bi nga ñëwee léegi dama la wax ni kii du sama doomi sëriñ nga ne ma yeewit sama doomi sëriñ te yow mii yàlla dogal na saw tur Sëñ Abdou Lahad ko sàkk defe naa ni bi nga ganee àddina Sëñ Abdou dafa doxe ba gaar ba jóge gaar ba dem ci hôpital ba tudd lu tuddali Sëñ Fallu door a door a wax Sëñ Sohaybu ni Sëñ Fallu laa ko tuddee kilifteef gi doxoon seen diggante yi ak ak tam bàyyee gi kilifteef gi mu doxoon Sëñ Abdou Lahad ak bàyyee gi boppam itam yéen du ngeen xam loolu ñu netti leen ko dongo yi daanañ bay ba àggal tool yi ba lépp sotti sëñ Abdou Lahad jaar fa laaj laaj laaj boŋ ba tuuse ko def ko ci soxlaam te musu ko koo laaj ceet loolu kilifteef la am déet loolu dund nañ ko ak sëñ Souhaïbou ak Cheikh Abdou Lahad du ñaari jëm jenn rek lañ daf ko daa waxee ni ko moom sëñ Souhaïbou moo ko daa wax sëñ Abdou sama bopp ma la gënal dey dee su ko wax nit waaye nag ñor nga ma lool lool lool lool daana ko wax féete woon na ko foo xam ne nun te kër ga la nekkoon am na si duñ ko mën a leeral ci biir jataay yi ci wàllu batin loon xam loo xam nattabli wuñ ko duñ ko sañ a leeral nag waaye na nga na ngeen xam ni daal am nan kilifa goo xam ne nan ko sant yàlla njabooti suñ tubaab yëpp nag benn lañu kenn ku nekk Sëriñ Tuubaa def na ci yow lépp waaye noonu nag sant nañu yàlla tabaaraka wa taala bi mu nu tànnalee Sëriñ Soxay bi mii muy sunu bunt suñu digg ak Sëriñ Tuubaa amuñu lu nuy xalaat fenn amuñu lu yaakaar fenn amuñu lu nuy lébét fenn lu nu ci gannaaw fii ci àddina ak ci àllaaxira sant nañ ca boo gisee mënumaa sori ci wax ji yéen ñii ma fekk ngeen di jàng Matlaboul Fawzayni bi moo ma xaw a jaxase yàlla nag du sànq jëf ju rafet noonee mu joxe woon borom tabaaraka taala boppam ba jax ca takk te desalu ca dara gannaawam it gis nga suñ borom ni mu ko téeree gannaaw la mu bëggoon lépp ngi wuy te dara delluwul gannaaw te it sunu borom ci barkeb Serigne Touba may na ko dund na fi ci li yàlla bëgg benn taq-taqub àddina musu koo laal te nekk na fi ba wàcc te mos sa amee leen bor ci àddina loolu mooy teraangay lislaam loolu la ko suñu tuba defaloon loolu nak yalla nako yalla yàlla ci njaboot gep def ko ci taalibe yëpp ci barkeb Seexul Xadim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi te wéral leen barke cheikhul Xadim ñu nangu ñaan amiin barkeb suñ Tuubaa wa rahmatullahi wa mbokk yi ñongi nuyu di len ndorkel di jital ci nuyo bi ak ndorkel yi <coughs> a Cheikh mohammedul Muntaqa Al Khalifatul am li tariqatil muridiya di ko ñaanal yalla mu daliko sam te yok aw aw fanam ba mottali yene yep ak sumbu yep ñongi jël nuyo yoyu ak siyar yoyu diko tek ci loxo Cheikh mohammedul Fadil ibnu Serigne Souhaïbou Mbacké mi nga xamne ne kilifa jotaay bi ni nga xamne ñongi koy defé fi ci ëttub soxna maam xari Mbàkke bintu Serigne bu Mbàkke ni ko sëriñ Mbaye waxee rek daaw ci waxtu wii nii ñu ngi woon ci ëttub soxna moomi daam Mbàkke bintu Serigne Souhaïbou doon fa defee waxtaanu mel nii ren jii ñoo ngi fii ci ëttub soxna maam xari Mbàkke ci teewaayu njabootu Serigne Souhaïbou gi yëpp ma nees naa wax njabootu Serigne Touba gi yëpp niñ ko waxee léegi rek am waxtaan woo xam ne dañ koo bëggoon a waxtaanee mu jëm ci Serigne Souhaïbou ak yar walla yar ak Serigne bu Mbacké waxtaan woowu nag ñoo ngi sant bu baax sëriñ Mahmoudan ibnu Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne ubbi na jataay bi taaral jataay bi ci waxtaan wi ci kàddu yu am solo yooyu nga xam ne yëkkati ne ko di leen ñaanal ñoom ñëpp rek yàlla dolli leen sàmm. ca dolli leen wér ak fan wu gudd waxtaan wi nag ki ko war a def mooy ak docteur Serigne Moustapha Diop Ndar di jàngalekat di yarekat yaakaar naa dëkk bi ak yoon wi xam na ko bu baax a baax a baax ci jàngale ak yare ngir ne ci loolu la juddu ci la màgg ci la nekk it ca yàlla na ko ci yàlla doolu lee dëgëral daara ju mag jooju ngeen di dégg ñu naan tey siirul asir di daara alquran ju mag joo xam ne lañ fay yare di fa jàngale ay téeméeri téeméeri xale mokkale alquranul karim ca daara jooju nga xam ne manees naa wax ne sax bàngaas yi law na fu baree bari ci réew mi moom sëñ Moustapha mii mooy jëwriñu daara jooju moo ko sos waaye di kenn it ci liggéeyu yoon yi di kenn ci jàmbaari yoon wi ndax complexe bu mag bii nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha moo ko taxawal mu dajale xeeti bàngaas jàngukaay yu bari bàngaas bu njëkk ca gën am doole muy daaree alxuraan ja mu bokk ca ña nga xam ne ñoo jiite daaree alxuraan jooju nga xam ne mi ngi ci mu jamax Cheikhul Khadim bii nga xam ne Serigne Mountakha moom la tijji woon bu yàggul manees naa wax ne yënguy yar ak jangale ci alquran yi ci rew mi rawati rawatina ci yoonu murid sa yo gisee mu ko rek dang ca gis loxom dang ca gis jëmmam yare kat di kat sëñ Moustapha Diop Ndar momu mo wara def waxtaan wi nga xamne moy yar ak Serigne Souhaïbou bu waaye waye daw ci waxtu yi biñuy def waxtaan wi gis nañ fi Serigne ak docteur Serigne Sam moom kenn la ci kër sëñ Souhaïbou nekkul koo xam ne nii it ku ñuy présenté la kër gi xam na ko bu baax kër gi miin na jëmmam miin na ay waxtaanam ak yoon wi yëpp muy ak docteur Serigne Sam Bousso ci waxtu wii thème bañ jëloon dëppale koog Serigne Souhaïbou defoon na ca waxtaan wu am solo woo xam ne ci kër soxna moom yi soxna moomi daal soxna moom yi daam bintu Serigne Souhaïbou Mbacké fële ca Mbacké Paleel naka noonu bu sëñ Moustapha Diop daaneele kàddoom incha allahu taala danañ jox sëriñ Saam mu andi ci ay commentaire ñaan suñu borom jotaayam yàgg liggéeyam yegg di nuyu bu baax ak ziyaara daairat qurrata ci gannaaw fi jëwin moom mi nga xam ne moo ma ubbil bunt ba ma mën a bokk ci jataay bu mag bii di waxtaan ci ab yar di waxtaan ci góor gu yàlla gu mag googu di ndokkeel bokki jullit yépp bokki ba yépp ci weeru koor wi ñaan suñ moroom mu defal ndimbal ak tawfiq ba ñu dund ko te dundal ko ni ko yàlla santaane te gërëm ko tem nangul na ko te may nu it nu fekke ko at yu baree baree bare ci ku wér ak tal ak jaamu yàlla bu ñu nangu الحمد لله رب العالمين sëriñ Mahmoudan li mu wax ci sëriñ Chouaïbou ci thème bii doyoon na sëkk ñu am ci yóbbal ndax mission moom sëriñ bi moo doon jàngale ak yar yar nag dafa melni mo moo doon mission bi tax yàlla yoni yent yeb ak ñi nga xamni dañu dik di yeesal yoni yent yi dafa melni yar moy mission bi dal suñu borom bam ne inni ja'idun fil ardi xalifa يكتي كادو جيبي كوتي ملايكه يدن واخنا من داي دما بغ سامب كو تاي تي كاو سوف لول لا واخ ملايكه يي دما بغ سامب كو تاي تي كاو سوف ملايكه يي تونتو اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ا ندخ دنگ فاي سامب كو خامني كو يارا ديكولا يقلا فاي نيكي ak tuur deret damay wax ne foofu malaayika yi ak li ñuy xejj xejj yàlla seen borom dégguñu yàlla keroog ndax fa yàlla waxe ak fañ tontoo dangay xam ne dégguñu yàlla borom bi suñu borom nag kamaal ga ak sori ga tax na mbindiif ak maqaama moo mën a yor doo dara fi boobu tax ma ne kon dañoo dégguñu yàlla ndax ba mu ne jaa'ilun fil ardi xalifa dama bëgg a samp kuutaay ci kaw suuf xaliifa la wax ku ma wuutu kuy wuutu yàlla lan ngay mànkeeti kuy wuutu yàlla yàlla sa borom waajal na la la ca war ca yar la ca war ci waajtaay ndax kooku rek moo ma dul xaliifa kon ba mu waxee xaliifa la wax koo xam ne ki de jàngal na ko yar na ko waajal na ko bu nekkee ci kaw suuf day dox doxinu kim wutu ci ay ndigalam lay dox ci ay téeram lay dox moo tax loolu ñu malayka kay ad addu ne ko ndax dañ fay def ko xamne day yàq ka tour deret loola soree na ak khalifa yar moy mission bi suñ borom bi muy wax ci walu yar dafa reeyal mbiram lool damay wax ni suuratu wa shams suuratu shams saar la woo xam ne mooy saar yuy wane yaru ak yaradiku ak résultat ba cay jóge suñ boroom dafa tàmbalee baada audu billahi min alcheytan arrajim di giñ wa shamsi wa duhaaha wal qamari ida talaaha wal nahaari ida jallaha والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها waat na بن يف واتشي جنت waat يور يورم واتشي ويروي waat ci bëccëg waat ci guddi waat ci asamaan waat ci suuf waat ci bakkan ak ni ko bindee muy jëmm ju mat sëkk mu ne bi ma bindee bakkan nag ma jëmbat ca ab yar jëmbate it ñàkk yar fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ci coobare mu bind doomi aadama jëmbët ci moom yar ak ñàkk a yar su ko defee nag bu tasee ku ko yar bu tasee ku ko yar kooku mooy ka texe nag fii texe àddina kooku mooy kii réussite waaye wa qad xaaba man dassaaha bu fekkee nag dañ koo neenal yaruñ ko kooku nag mooy ka perte fii perte fee kon suñ borom waat na ci juróom-benn yëf juróom-ñaareeli bakkan doog a dikk ci li muy waat li muy waat mooy ki yar bakkan ba li ci aw yiw di ci ak mbaax mën a sekki ba ko mën a jariñ boppam mën a jariñ mbindii fi yàlla yi nekkal kooku mooy ka réussir waaye ka perte mooy ka ca des nga xam ne moom amut sensu tase ka ko yar ku ko yar ñu neenal ko kooku mooy ki perte daal di indi nag ku yaradiku ak ku yaru la ciy jóge كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بصوته بذنبهم فسواها فلا يخاف عقبها يلا عندي كو خمني دا فا يارو بي بيار موي يونت يالا الصالحون muy ku yaru di ko di kuy jàngale yar mu génn ci wet ga ku yaradi ko ñu yaradi ko mooy samuud saadixu ci boppam yàllaa ko yónni mu jot la yónnante bi jaami yàlla yi suñ boroom jox ko gëléem ne ko gëléem gi mooy sa mucjisa mooy tegtale yow sa miracle ne yow yàlla la yónni saalixu ne gëléem gi mooy kéemaanu yàlla ci man ne man day mooy firnde ne yàlla ma yónni kon gëléem gi wattu leen ko gëléem gi sàmm leen ko jox ko ak xam ndox mi di leen ko may muy naan su naanee yi nit di naan loola lu maandu la yeneen yàlla mooy wax nee na kii kii maanu suñu boroom la sàmm leen i ak xam ndox mi bu dee leen naan te muy naan samuud di xeet kenn ca ñoom kë ci gëna a yarade ko izin ba'sa ashqaha muy qaddar mu ci gëna a yarade ko mu jup gor gëlem ga mu daanu xolal ki ci aw xetam ni mu mel izin ba'sa ashqaha ke gëna a yarade ko muy ke gëna texé di mu jóg dal ci karama yàlla boobu gëléem gu gor ko mu daanu roy ko waaye gis nga yara di ko baaxut la mu jur fa damdama alayhim rabbuhum bi dambihim fa sawaha suñ borom sotti mbugal ci seen kaw këpp suuf ngir jëfi yara di ko gii teg ci ne fa laa yaxaafa def naa ko te faaliwuma la ca teg lépp ragaluma ca dara kon yar mi ngi noonu yaradi ko mi ngi noonu yar mooy mission bi nga xam ne moo tax yàlla yónni bi yonent moo tax yàlla wàccub téere yar rek mooy tax doomi aadama dox ci kaw suuf doon ki wuutu yàlla ndax kiy wuutu yàlla day des na ko waajal ci jikko des na ko waajal ci xel des na ko waajal ci ci xol Cheikh Sadou Mbacké radiallahu anhu bokk ci ñoo ñi nga xam ne dañoo dikkoon di bay ci waaru yonent yi ci mission boobu nga xam ne moom naa wax moo tax yonent jóg mu doon koo xam ne moom it suñ boroom da koo indi ngir mu liggéey ci yar liggéey ci waajal ndoomi aadama ngir mu mérité nekk xalifatullahi fil ard di ko wóotu yàlla ci kaw suuf dafa dëggal nag bëgg-bëggu Serigne Touba ndax Serigne Touba day wax nañ ne am na ko ñëw ci moom ne ko Mbàkke day dama bëgg nga ñaanal ma ndax man de cat dafa maa jàpp wax ne Serigne bi mu fab kaalaam teg ko ci gimiñam ne ko man it day cat dafa maa jàpp kooka jaaxle ba xamatul lu muy wax mu ne ko Mbàkke yow cat fu ma la jàpp mu ne ko li ba gënoon a bëgg mooy toog Touba di jàngale alxuraan di yar te sama noon yi dox nañ sama diggante ak loola kon mu doon bëgg-bëgg moom sëriñ bi di woon mébétu xolam xasida gi nga xam ne moom la sëñ Mahmoudoon doon waxtaane léegi musaada fala waaye sax du hasard سرنج بيكي بابم دا بوك لام تي دون نيان واجعل هدبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم بابا جابلوغا خامني اب غورتو رك في نيك بايم رك في نيك اسمانك سوف رك في نيك سون بابا لا سيرن توبا دون نيان دك بي بو نيك مسكن التعلم damay wax ne Touba day ñaari xasida Matlabul Fawzayni ñaari dë ban ñoo ci nekk ñaari dë ban yooyu ñoo gaaf Touba lay dan gaaf bi mu ne waccaxu dë ban maskana taallum def ko faw muy daara moo tax nañ jàpp ne luñ gën a jëm kanam Touba di gën a màndargaal ne Touba mii daara la daara si Muntaxa ji bokk ci firnde yi mujj dikk nit li sëñ ba waxoon waccaxu dë ban maskana taallum ba tey gën day gën di firndewu kulliyati mujizatun taaxarat wa xayru xayraatin ladayka duxirat lu mujj ñëw lu ne gën a firndeel la mu waxoon ci njëlbeen bi des mooy wal tusbitan fiihi jamaatan tuqiim salawaatil xamsi dëbban def ko jàkk muy faw kon defal dëkk bi muy daara faw def ko muy jàkka faw ñu di fi taxawal julli juróom baat yooyu nga xam ne moom la sëriñ bi wax ci ci bayit yooyu def ko faw booy barabu jàng wa mawdi al fikr barabu xalaat wa tafahum barab boo xam ne des na fi déggee lu jafee déggee lu ne ci xeeti xam-xam yi am njëriñ ak la ca tege lépp damay wax ne ñaanam googu nag suñ borom da koo fàggul ñoo xam ne ñooy jëmmal ñaan ka te muy dëkk faw mu nekk barab boo xam dañ fiy jàng di fi jàngale di fi yar di fi nàmm am xel di fi tàggatu lépp lu xam-xam bu am njëriñ mën sëriñ e, sëriñ Souhaïbou bu ci boppam suñu borom da ko tawfiixale loolee sëriñ bi ñaanoon mu ñëw moom di ko jëmmal yittey sëriñ boobu nga xam yittey xoolama woon mu bëgg mu doon ab bëgg-bëggam te mooy nekk Touba di jàngale alxuraan di jàngal di tey yar kooka da koo feeñu ci yàlla da koo feeñu ci sëñ Suwayb moo tax sëñ ay bu tawfiiqu suñu boroom da ci sëriñ Touba mu jëmmalal ko la nga xam ne moom nga bëggoon te suñ boroom dugal ko ca moom te it doxin wi mu ci dox soo ko settantalee analyse ko yi xam ne tigi sëriñ Touba mu toog di jàngale la sëriñ tubaa dogoom nga nga xam ne fu mu yóotu nga sàkk bunt dogoom ga ak dëddoom ga ak sellam ak sellalam ga ak liggéeyam bu mat ba lépp dafa feeñ ci Serigne Souhaïbou bi nga xamee ne toog na ngir jàngale ndax koo xam ne bi nga duggee Touba ci ndigal ci ndigalal jàngale ba nga toogee génnatoo Touba lu mat ñeent fukki at jëmatoo fenn ci jenn xibla séenatuñ la ci menn mbedd gisatuñ la ci yenn yittiiti lu dul nga toog mel ne ku nekk ci xalwa te noonu la demee njàngaleem sëriñ Shuaybu ci Tuubaa xalwa la woon yaa ibaada la ko defoon goo xam ne teewlu ga ak sellal ga ak dogu ga ak saxo ga lépp dafa ñuy woon koy sëriñ Tuubaa bu toogoon di jàngal anu muy mel nangami at yu yàgg yoo xam ne mu itikaaf sëgg ci barabu xam-xam sëgg ci alxuraan di ko jàng di ko jàngale sëgg ci xam-xam di ko jàng di ko jàngale di ko leeral di ko bind diir bu yàgg nii te booleetu ko dara ñi nekk ci moom dañuy wax ne su masaan di jàng day tëj bunt yëpp nekku na ci xal ba tëj bu tëj bunt yëpp sëriñ Abibu Saax nee na te moom day xam na sëriñ bi sëriñ bi daana nekk ci biir di jàng di jàngale ni ci biir ak donga yi nit ñëw yor addiya ne ci bunt bi di wër di wër dem ak dikk sëriñ bi ne ci biir kooka du mën a agsi ci sëriñ bi ba jox ko addiya ja dana fa nekk ba bu yàgg sax amul tawféex day dellu yóbbu addiya ja sëriñ baa ngi ci biir tëju ngir njàng mi ak njàngale mi du ubbi mukk te kat nee na ca waxtu woowu soxla na lool addi yi nga xam ne moom la taalibe bi yor soxla lool di dong bi yor dong bi it mi ngi soxla lool jox ko sëriñ bi ngir seen boppam bu muy dox ak a dikk ana fu muy jaar ak kañ la sëriñ bi ubbi dana ko yor ba xëy ñibbi yóbbaale ko te sëriñ bi du ci jot te sëriñ bi aajowoo ko lu tax ndax jàng jàngal rek ko ti kii day dafa wane yoonu sëriñ tuubaa bu toogoon di jàngale ak di jàng ak jàngale koy defee mu doon koo xam ñaar daa daje ci moom te jafe na mu daje ci nit sëkk mooy nekkoon faqih multazim sunni di boroom fiq boo xam ne tànkam ci kaw sunna rek doo doon suufi yi boo xam ne raasix la suufi yi boo xam ne dafa seey diggante tasawuf ak sunna daje ci góor yàlla googu dëppoo ci moom muy doxee tànkub sharia di doxee tànkub xaqiqa te dara du ca man moroom ma ba di ko mëdd waaye it dogu aw yoon ci taalif damay wax ne téere bii nga xam mooy qurratu ayn dëppoog rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama téere la boo xam ne qurratu ayni ni tur wi tudd loola mooy contenu bi moo ne ci biir تير بوم نبي خني مفتي لا تي مرشد لا امنا ماك موني مان دي بوي سيني موي سيني يلي ماري دك ماني كو تيغي كوكو نك موكو جوخ تورم نك نينا موي سيني تير بي موي سيني يلي ماري دك ndax téré bi lim lambo ci xam xamu fiq lim lambo ci xam xamu tasawuf ci xéti azkar ak adhiya ak yu ni bu boole yoon wi nga xam ne ci sëñ Cheikh bu dund te mooy dund sharia dund xaqiqa téere bu boole la boo xam ne képp koo xam ne ab jullit nga boo jàngee dara sa ëllëg sax mën naa bañ a sori ndax fexeel ba fer ijji mën a jàng arafi wala fii mën nga koo jariñoo téere bi bu nekkoon ci arab ki koy mën a jariñoo mooy ko xam day jàng at yu yàgg waaye téere bi tey jii ci xereñu sëriñ bi ak yàlla yombalal gum ko yombalal tasare xam-xam mu def ci ab xolam ilham yenkeewal ko mu xëy rek di bind ci wolof te it bind fiq ci wolof ci anam bu pastee fi nii te yaatoo di xamee su ko fi woon ndax kat sëriñ Tuuba ci boppam li muy bind di bind lu bare bare bare bu fekkoon ne sëñ Shuayb bu dafa dikk jaar te yoonam boobee di kon ci arab lay bind waaye ngir àggale liggéeyub Serigne Touba mu àgg rëkk direct ñu koy jëriñoo direct ci adam bu yomb moom suñu borom dafa def cim xelam ne bind ci wala fa mu dal bind ci wolof nga xam ne wax kooku xàllal na borom xam-xam mi ñëwaat gannaawam ci réew mi yoonu tasaare xam-xam ndax yoonu tasaare xam-xam yoon moo ci gën a wóor gën ca assuré muy tasaare ko ci saw lakk téere bi téere bu rëy la ku nekk xam ne ba mu koy bind teewlu gu rëy ca nekk ak at yu bëree bëree bëri feeñ na ci téere bi alhamdulilah rabbil alamin muy téere boo xam ne ko waxee téere fiq la téere tasawuf la téere sharia la téere xaqiqa la kon ni nga xam ne ne xàlle aw yoon ci jàngale alquran ba fent ca madrasa daara joo xam daara bind la noonu it la demee ci xam-xam ba fent ci aw yoon te muy bind ci xam-xam di bind ko ci lakk réew mi muy lu yéeme ñëpp mën ko jëriñoo allah rabbil alamin nag liggéeyam ba meññi na ndax ni ko sëñ sëñ Mahmoudane waxee tey jii kër sëriñ Touba yi njabootu Serigne Touba yi foofu dugg fu ne Cheikh Saliou def na fa ab jum boo xam ne mën naa taal kon eh, ñu taxaw foofu ah, di ndokkeel bu baax daairatu Xurratu Ayn di ndokkeel soxna si eh, di ndokkeel waa kër Chouaïbou bu yëpp di waajal màggal gi ñëw ñaan suñu borom àgg ci te lépp luñ ci yëngu ca yéene ak wax ak jëf si borom gërëm ko te nangu ko delloo yool ba Cheikh Souhaïbou Mbacké te bàyyi fi njaboot gi ñu bàyyi ñu bàyyi fi ñun ñu ànd ko ñoom di dundal yoon wa te bu mu raaf mukk jërë ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kii ñuy waxtaane tey nag yàlla da koo jagleel liggéeyal alquran ak defar bakkan yi yàlla defal ñu tawfiq ñu jaar ci keppaaram xam naa sunuy at mayu ñu ñu fekkee waxtu wa muy jàngale waaye ci kilifteefam ak ci keppaaram ak ci daaraam ak leeram wala ñu formaté yàlla dogal it defar ñooñu ñooñu ñu defar kon ci mina naahiya tatbiqiya mooy bu dul ay théorie li nga xam ne dañ ko daan gis mu ko daan mu nekk ca daara ja loolu gise nañ ci ab yarkat bu mag a mag muy jàppandi ci jamono jooju euh, taxawal daara waaye daara ju toll noonu ci mbooloo nga xamee ne bu ñuy xool dafa mel ne yoonu murit ñi àndoon ak sëriñ bi liggéey bi bi ñu demee ba noppi gis sëñ bi ñooñu wóyale liggéey bi ñooñu la ñu mën a tuddee al abaul muassisuun mooy jiiru sëñ Mbàkke Buso jiiru sëñ Daam Abdourahman ñooñu ñoo ànd ak sëñ bi liggéey bi bi ñu sëñ bi àggaleeb liggéeyam ñu yanu ko wóyale liggéey bi dafay mel ni bi ñuy ñooñu di àggal seenub liggéey la sering Chouaïb bu ñoom ak sering Saliou ak sering murtada day mel fi muy wane Touba fay kon ci circonstance ci jamono ju jafé la taxawal ligue bi lolu laaj ak dogu laaj détermination te yaakaar naa loolu kuy defar doomu aadama képp ku bëgg a mooñ bakkan yi jikko boobu lañ gën a soxla ci yéen te sëriñ bi wane na ko lu jàpp lu àdduna jafe-jafe jamono jooju ab dund rek am ko yombut ku yurut say tool yu yaatu loo mën a dunde yow wax waxuma laa ngay yor ay xale du doon lu jàppale waaye ànd ak jafe-jafe yëpp ak sikkus jamono ak la cay am lépp liggéeyu sëñ Tuubaa bi bañ a ni ko sëñ Muntaxaa di waxee bañ a laal suuf jaral na ko coono bu ne mu nangu ko jàkkonte kon loolu lañuy ñuy njëkk a seetlu ci waaye li ñuy seetluwaat ci boo nekkee ca daara ja mooy dogu gu metti dogu ak dogu di seetlu ci moom it ni ko borom xam-xam yi waxee léegi ku am méthode aw yoonu yariin wu tegu ci sunna lool yaakaar naa ne boo xoolee rek ni muy taalife dana la wan man nga ci déduire génne yoon wi mu daan méthode bi mu daan tarbiya te loolu mooy yoon wi baayam Cheikhuna al Xadim indi yeesale ko di ko defar doomu aadama mooy faawu nit ki ñu defar ab xolam defar ak ruuxam defar bakkanam mu defar xol bi gis ne ni mu jëlee alquran bi nga xamee ne mooy li yàlla gën a bëgg ni ko sëriñ bi waxee léegi defar doomu aadama ku mën a wuutu yàlla du lu yomb waaye ci li yàlla bëgg la ñuy defaree liy wutu yàlla moo tax gis nañ loo xamee ne ñi yaroo ci daara yi sëñ Saliou daana sëñ Saliou daana ñu ko wan lu bari rawatina jàngalekati alxuraan yi fu sëriñ Tuubaa kayit wu mu bind wax ne alayya li wajhillaahi tabaraka wa taala eh, nu mu ko waxee sax aliyal yow ci lay tabaraka wa taala iqaamatu man yuallim talaamisati kitaaballahi man fihimul qaabiliya lu Sëñ Tuubaa warlu woon ak boroomam la képp koo xamee ne am nga man-manu mokkal alquran wala jàng alquran nee na sama wërtéef la sama digganteeg yàlla ci samay taalibe ku ci man loolu ma def ko ci yow loolu la njabootuk Sëñ Tuubaa gi doon roy doon doon doon ci taxawal daara yi sëriñ bi nag yàlla may ko ci tawfiq mu ca dogoom ga ca ñeme lu metti taxawal daara ci jamono joo xamee ne benn mooy amul ngir liggéeyal fa bàyyam bu tedd boobu waaye mu def ci résultat bu yaatoo yaatoo mu mel ne ñi war a doxal yoonu murit ñi war a gàgganti lislaam ñëpp foofe lañ leen waajale kilifa yi fi teew noo leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di nuyu soxna maam xëri di ko ziyaare bu baax ak mboolem njabootu Cheikh Souhaïbou bu gi nekk ci jotaay bi ak mboolem njabootu Sëriñ Tuubaa waaye di ziyaare bu baax nag euh, mboolem sët yi Sëriñ Souhaïbou bu maa ngi jàkkaarloo Sëriñ Abo waaye ziyaare boobu dama koy toog teg rek ci loxol soxna Marème suñ ma ko mayee bu defee moom moo yaatal Serigne Mourtala dama lay sant bu baax ginnaaw ma sante Serigne eh, Moustapha Diop ci waxtaan am solo bi waaye présentation bi dafa gàtt waaye daf maa neex lool ndax boo ne xam kuñ xam la kër Serigne Souhaïbou bu kuñ fi miin la loolu moom dañ ciy sant yàlla bu baax a baax ndax eh, loolu kuñ fi xam moom miin la di doo ko rëccu kon ñu ngi lay sant ci loolu xam naa li may yokk ci waxtaan wi du bari ndax Serigne Moustapha indi na lu yaatu ci wàllu yar waaye nag joxe na ci ay tegtal yu fés ci dund a Cheikh radiallahu taala anhu te lu jiitu loolu Serigne Mahmoudan kàddu yi mu fi yëkkati xam ne moom daf koo dund dund Serigne Souhaïbou wax ñu ci moom ay melokaan ak i doxalin yoo xam ne wane na yarkat bu mat sëkk waaye li ci Serigne Souhaïbou Kébé tegaat loola yëpp doon lu mat sëkk kon liñ ci barkeeloo ci waxtaan bi mooy xëy na ñaar wala ñetti tomb yoo xam ne dinaa ko jële ci seeni waxtaan mu doon loo xam ne nun tey ak képp koo xam ne yarkat nga war nga koo mën a jële ci dund Serigne Souhaïbou radiyallahu taala anhu ndax moom kat niñ ko waxee ñun ñëpp dafa toog toogaayu sëriñ Touba ndax lu sëriñ Touba bëggoon mu nekkal ko ca waaye man damay jàllale توغاي بوبو ني دافا توغ توغاي يونتبي صلى الله عليه وسلم ده هو الذي بعث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه لول مو نيكون ميسيون يونتبي صلى الله عليه وسلم تي سيرن شعيب لولي دا في نيكون موي جانغلي واي دي ياري كون كو بغا دون ياركات بو مات انا لو نجيك جانغي شيخ شعيب wax nañ ko ci biir mooy lam doon yare da nekkoon jiitu jë te loolu màndargay ku bëgg a yare munoo jaarloo nit ñi foo xam ne yow jaaroo fa ña nga yar munoo leen jox melokaan woo xam ne yow meloo ni serchange bu nag dafa jiitaloon am melokaan woo xam ne dund ak moom rek doy na ab yar kuy dund ak moom doon xool ni mu doon doxe loola doy na ab mu boole woon kon ak njub te njub googu nga xam ne yàlla defal na ko ko dafa doon loo xam ne Serigne Touba moo ko ñaanoon bi di ayaali bi laa bukaay Serigne Touba bu ñaanee suñu borom ne ko na nga jubal sama njaboot ci anam goo xam ne du ànd ak ay metit yuy sabab ay jooy kon ñaan googa dafa nangu ci mbooleem njabootu Serigne Touba. loolu bokk na ci li nga xam ne ñi am xam-xam ci wàllu jàngale ñëpp saxal nañ ko ne li ñu tardeel ci wàllu xam-xam ba nga xam ne daanaka boroom xam-xam bu mën a dem ba àgg ci dundal xam-xam mën a créer dara loolu bariwul ci ñoom ndax da ngay sànq ci sa dund lu yàgg ngeen mën a fet ijji ca làkk wa ngay jàng loolu nag kon jàpp naa ne bind la bu rëy boo xam ne war nañ koo yaatal nii mu ko defee ci xam-xam bi nga xam ne dañ koo soxla muy suñ faratay jëmm yeneen xam-xam yi nga xam ne dañ koo soxla ci suñ dundu mënoon nañ koo jéem a def noonu te loolu am na ñi nga xam ne ñi ngi ciy liggéey ñoo ñu ngi leen ci encouragé am na groupe yoo xam ne tey seen yitte mooy bind xam-xam bi sotti ko ci suñu làkki wolof yi ku mel ne suñu du xaadir kebe mi ngi ciy def ay liggéey yu ama am solo loolu ko ay bind la yu ñu war a mën a jële ci li nga xam ne mooy liggéey bu Serigne Souhaïbou muy liggéey bu yaatu boo xam ne jamono ji soxla nañ ko mu mel ne liggéey bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha hafizahu llahu taala wa ayyadahu wa nasarahu yëkkati na ko ku ne xam na ne inspiré wu na bu baax a baax ca daara Serigne Souhaïbou ndax ku gis ni mu jiitale ca ñamu fay ñañ fay jël njaboot gi nga xam ne ëllëg dañoo war a am ay ndo dañoo war a am ak ab yan buñ taawu am ay responsabilité loola ku ne xam na ne bàyyi na xel yoon woowee nga xam ne Serigne Souhaïbou xàlloon na ko kon ñi ngi ñaan suñu borom mu taasuñ ci barkeem ñi ngi ñaan lépp loo xam ne liggéey na ko muy gën a yaatu di gën a yokk njabootam gii mu fi bàyyi suñu borom sàmm leen aar leen ba yéene yam amoon te ñu nekk ji suñ mën koo yeggale ndax wax dëgg yàlla ñoom it ku xool seen doxin xam ne ña nga ca yoon woowee nga xam ne moom la Serigne Chouaib bu xàlloon Serigne bi ñu fi jógee ku dem ca Ndakaaru gis daara jam fa def nam nañu fay mokkale alxuraan ak namu leen di yare ak namu leen waajare ci loo xam ne adduna bi soxla na ko dundam gépp waxtoom yëpp mu def ko ci loola loola mooy wane ne kon moo ngi ca tànki Serigne Chouaib bu yëpp boo xoolee njabootam yëpp ci loola lañ nekk ci góor ñi ak jigéen ñi kon yàlla leen yàlla jàppale yàlla na leen yàlla sàmm aar leen guddal seeni fan te barkeel seenu liggéey ñu ngi jéggulu bu baax baax dafa xaw a guddi moo tax ñu jéem a tënk kàddu yi ca li jiitu lépp am solo wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ñu ngi di leen siyaare di jaajëfal bu baax bokk yi nga xam ne ñoo jiitu ci barab bi bi ñu fi toogee ba léegi te kenn ku nekk ci ñoom rek limu fi wax tay seuk nga xamne genn kaddu gu nek ci sen kaddu yi jaar na joge barab yu sori fekke ci ko dëtam ci wat len ci sante bu baakha baax di ñaan suñu borom mu defal len ci ngeen jiwu waye nonu lañuy sante ak ñaanalit mbokki daayira yi nga xamne ño taxawuli wajale ko bisub jàmbaari lislaam ji e, taxawaay yu rëy yu am solo yi muy lu ko mat lool ndax ku ne xam na ni li fi feeñ tey ci xam-xam tàmbalee ci sëriñ Moustapha ni mu delloo seewaate yar waaye joxe ci sëriñ soxay bu muy misaal loolu jamono soxla na ko lool kon mbooloo yi nga xam ne ñoo xalaat lii def nañ lu ko mat jataay bi nag xam naa comme lu ñu waxoon la tamit jataayu bi yiw buñ ci joxee nit kàddu da nga cay sant ngir bëgg a dëtam ca yiw wa waaye xam nañu ne ñiy taatan moom buñ dee feesal feesal nañu ndax serigne mahmoudane mi jëk a ubbi nit buy wax ci yek yek dafa am solo dafa doon wax lu mu doon dundu nga xane dafa melni day mujj yow da ngay and ak mom diko dundu euh loola rek dafa fesson kon ginaaw xawna na sax te li fi jall mat na sëkk gendiku yu gat rek lañuy am muy dama koy tudde yërmande Serigne Souhaïbou ci mbindeef yi ci jegeel lu sori woon hmm. moom la sëriñ Sam wax léegi jegeel lu sori woon mbokk mu wax Serigne Moustapha ne ko suñu dëkk xoloto ay ni mooy imam ba ak a bari dëkk yu mu ko doon xay na ku nekk ak na ko doon tuddee nag waaye euh, bari na ñu muy seen imaam te ko sëkk ndax moom boo ko tiimoon di ko jàngat doo mën a ñàkk a wax ne téere fiq lay jàngat boo ko tuddee bopp tasawuf waaye tamit pàgguteefu borom kër ci biir këram ca ya ñuy aajowoo ci ay léemaay ki bind euh, lu ci nekk boo ko tuddee téere bi daf koy mat sëkk waaye ubbi gi mu ubbi waatal walla jegeel murit gi lëkkale leen ak salaatu ala nabi loolu it man ci li ma ci gën a marqué la bokk hmm. ci li ma ci gën a marqué la bokk mu doonoon boroom taxawaay boo xam ne euh, ci wuutu sëriñ bi ci yaatalal ko ak yàkkalil ko ab liggéey ci njaboot gi wet goo ko xool gis ko ci am na ci boo xam ne ñu fi jaar ñëpp tudd nañu ko mooy dajaleel gi mu ko dajaleel njaboot gi ci benn barab boobu day man ba ma ko dalee diir ak a yàgg mu yéem ma ma di ci séentu njariñ yoo xam ne ndax dajale ñoo xam ne su leen fi yàlla bàyyee ñooy yilifi nga taxaw ci seenug xam yemoo ci taxaw ci seenu xam waaye fexe bañ bokkandoo benn barab xamante miinante nga xam ne noonu la ñu wéy di bokkee ji jamono loolu dafa dimbale ñooñu te ko ñooñu ku leen dimbale yoon wi nga dimbale moo tax bii ko Cheikh Mouhamadul Mountakha sosewaatee daara ju mag ji alhamdulilah dañ cee noyyiwaat bu baax tey ñaanaat ñu leen ca mën a jàppale ca loola ay ndaw yoo xam ne su leen fi yàlla bàyyee ëllëg ñoo war a yilif kon lu ñu xam doyut lu ñu ju ndax dëgg-dëgg jàpp naa ne jamono bii ñu toll lislaam gënte yittewoo waxtaane dara ci lu yar yar ni ko lislaam yittewoo jamono bii ñu toll jàpp ma ne am na benn thème bu ko jiitu waaye façon bi ko Serigne Moustapha indee dellu ca cosaan fàttali ne mooy mission bi yonent yi aleyhimu sëriñ bi jeexal ci dooleem Cheikh Souhaï bu taxawee ci nii mu taxawe nii mu ci taxawee ba am ci résultat bi mu ci am nga xam ne tey jii jiil bii fi nekk te toll ci jàng aka bari ñoo xam ne ci ñi mu defar lañuy jànge kon loolu lu mat a fàttali la te mat a bàyyi xel te mat di ko baamu ak di ko baamuwaat ndax nit ñi fàttalikuwaat ndax ku ne xam na ne jamono bii ñu toll ngelawul liberté ak yi mel ne moom àgg na ci jamono foo xam ne xiinu tarbiya wu sàqiwaat ci kawam ba mëdd ko rek moo mën a delloo si jàmm yàlla nañu ko yàlla defal asalaamaaleykum wa rahmatullahi du mën a du mën a ñàkk ñëw indi tuuti rek ci sëriñ Sohaibou mi nga xam ne moom moo taxoon ñu daje seen Souhaïbou léegi rek maa ngi koy wax sama mag sëriñ sëriñ Souhaïbou moom sëriñ si Ahmadou Mbacké sëriñ Abo di ko wax ne ko sëriñ Souhaïbou ku mat a ku ku ku neex a waxtaane la ndax léppam dafa mat sëkk ba noppi leer nañu ndax jëf lu wutoon lépp moo ko jëfal boppam te daa seet li sëriñ Touba gën a bëgg mu féete ca jeexal ca dundam gën loolu nag lu yàgg feeñ ci moom la farlu gi ak yitte ji ak bëgg gi lu baax ak sàmmante gi ak bañ lu ñaaw ak téye aw làmmiñam ak muñ xumb-xumb yi ak xew-xew yi ak nargan ci ak njabootam ci lu baax loolu mu nekkoon di ko dund ba sax saa yoo ko masaana bëgg a tàggu jëm ci lenn lu dul liggéey bi mu nekk daf lay wax ne la law kaana xayran maa sabaqoonaa ilay bu doon lu baaxaa doomu ci jiitu nekk ci nekkin bu wóor sax ci suñu suñu fàllu Cheikh Mamadou Fadel moom Serigne Sonia bu dafa nettali ne ma daf koo laaj moom Serigne bi ne ko ndax soxna Mariama Jaxate fàttali nga ko fàttaliku nga ko mu ne ko déedéet fàttalikuwuma kanam gi de waaye nag am na gone yum daa jàngal xaw ma jigal euh, la lañ daa tari ci moom am na lu ma ci jàpp ba ci ay saar yoo xam ne ci laa ko mokkale mu ne ko wan saar mu ne ko xelatee ka xadiisul xaasi te suñ sony bu bi fi soxna ma di jógee at ak ñaari weer la am at ak ñaari weer ndax soxna ma mi ngi fi jógee diggu tabaski ci juróomi fan ya xam ne suñu sony mu ngi ñëw juróomi fan ci weeru koor ba weeru koor wa delsee mu am at weeru kor yi wa juróomi fan yi mu am at ak weer juróomi fan ci digg wa ci la soxna Mari mu gën at euh, wuy ji boroomam ci mu ne fàttaliku noonu la ba mokkal ca dara mel na ne kon liggéey bi mu nar a liggéeyal Sëñ Tuubaa ci alxuraan teel naa feeñ ci moom ba tey bi mu demee ba xam ni yàlla màggale julli ak ni mu ko fonke ak Sëñ Tuubaa yi ni mu ko fonke nga xam ne fu mu mas a jaar fu ne julli na fi lañuy wax dafa daal di calcul at yi nga xam ne moom la nekkee woon tuut tànk ba xëy na defewu ko na nga ko bëggee fay ko lépp ci moom lañ ko mës a dégg juróom-ñetti at la calcul di ko fay par bis bis bu mu jullee tisbaar julli juróom-ñetti tisbaar bu jullee takkusaan julli juróom-ñetti takkusaan bu jullee timis def ko noonu bu matee at muy juróom-ñetti at yi loolu def na ko ba ci fonk gum fonkoon boromam ak sukkandiku gum sukkandiku ci moom ak fonk gum fonk diineem ba mu jaral ko lépp wéradi na wéradi na ak wéradi sëñ Abdou Lahad moo ko jële fii keroog yóbbu ko ba dakaar dawalal boppam ba mu dee ñu xool ko ne dañ ko war a opéré mu ne waaw mën naa nekk waaye nag nelawal moom guñ ko ko def ndax bëggut waxtu julli di jot te du ko yëpp nga xam ne docteur bi daf caa yéem ba ne ko da ngay signé ngay signé bu wóor ni yow yaa d'accord ci ñu def ko noonu mu ne ko bisimilah indi ma signé mu signé noonu lañ ko opéré am na ko laaj mu ne ko comme gàtt bu ñuy fees muy dund noonu laa ko doon yëgee bañ ko opéré ba tubaab bi ko doon opéré dafa wax ne kii kum doon ñu ne ko kii doon Cheikh Ahmadou Bamba la mu ne su ma xamoon ne moo ko jur du ma yéem lii du ma ba tey bi nga ko opéré ba noppi euh, médecin bi dane dane ko feeg weer wala ñaari weer waroo yëngatu waroo jëf yenn jëf yu yu kii waaye ñaari fan la am tàmbali di jug ànd ak kenn di dem ca jàkkay maam El Hadj Malick saa yu Yel El Hadj Malick bi ci biir Dakar. di fa julli jee waxtu juróom juróom yëpp ba niñ ko génnee ci hôpital bi noonu la doon def am na bis kenn di ko tàggu di tukki mu ne ko nag dama bëgg boo demee ci sa yoon wi ba ñëw nga jàpp ci yàlla jéem ma toog ndax man miikat bi may toog ak doogu rek la woon waaye du ak jekk ne ko yoon bi ma mujjee Ndakaaru ba ma fay te booba sax ak wér-a-dee ma yóbbu woon di jëli rendez-vous ci docteur yi waaye bi may wàññi damay def garab gu ma romb rek ne tey laa koy mujj a gis lu ma romb ne lii tey laa ciy mujj a teg sama bët ba ma ñëwee toog metti na lool tumuranke gu ne fekk na ma fi lu ne fekk na ma fi waaye fi mu ne lépp jeex na ci loolu it toog na fii tumuranke gu ne fekk ko fi li sëñ Mouhamadul Moustapha mi doon wax léegi lu wér la boobu kër gi amul sax miir bu ko wër wala seng wala dara ay barbar rek lay am waaye bu jullee fajar ba àggale wér doom dem ca tokkóor ba tàmbalee jàngale dara wala kenn du ko jaral dagg liggéey bi ngir dara nee dana seen ko taxaw ca bunt ba dindi addiyaam ber fii li mu war a joxe ber li muy téye mu wóor ko ne da ko war a jox te fekk kër gi tey amul lu fi tàkk waaye dara du ko jaral bàyyi liggéey bi muy liggéeyal Sëñ ngir dem di ko gis ak donte da ko war a jox lu war a jëm ci kër ba tey bokk na ci li ñu war a jàngate ci moom bu wér muy nangu ku la wax dëkk nangu ku la wax dëkk ak kooka ku mën di doon dañoo nettali ne dafa nettali ne bokk na ci li ko sóob ci liggéey bi ak toog bàyyi lépp wan ginnaaw àddina tukki bu mu doon tukki ci boori Kajoor bi ñëwee ba jege deru Jeng am ci ñim àndaloon ku ne ko sëñ Balla Fally Dieng day soriwu la te am na doom ju ñuy wax Abdou Samad Dieng boo fa yónnee woon laaj ko ko danga la ko jox ndax jëbbale ko ko kenn te ginnaaw dangaa toll ci bëgg a samp daara mu njëkk ci sa daara moom mi nga xam ne ci ñi njëkkoon ci sëñ bi la bokk dana baax xos lay doon teew nee na ma rafetlu ko woo genn góor bu sant Jóob nekku dama daa bëgg a yónni ci sëñ Balla Fally Dieng ngir nga laajal ma ko doomam jooji hmm. mu ne ma waaw mën naa ko de man de sa baay rek laa yaakaar te yaay moom kon nag man na maa daw léegi ci naaju tàng wi doxal la sa yónnante boobu ko waaye bu ma doon yawa de du ma def noonu sëñ bi nee na bi mu ko waxee dafa mel ne dañ maa dóor aw ma ne ko bu doon yawa nooy def mu ne ma su ma doon yawa damay nekk ci li ma sama baay nekkuloo te bàyyi ko sama bopp sëñ Sow neen ma ne ko def naa li nga wax mu ne ma déet mankat dama doon wax rek waxi donga na naa daal dem de mu ne ko déedéet lii nga wax moo gën te moom na baat boobee góor gi wax moom la teg ci kanamam li des ci dundam gépp ba jàpp na ne fu mu àgg kàddu googu moo ko fa àggale lu muy bëgg a def loolu ñëw taxaw ci kanam lu muy bëgg wax loolu ñëw taxaw ci kanamam muy damay necc li ma sama bàyyi nekk loo te bàyyi ko sama bopp ba góor googu mujj na di ko ñaanal fu mu wax na yit ne la ko gën a sóob ci bàyyi lépp te jëfandikoo kàddu góor gi bokk na ci laataa muy jógee ca tukki ba Abdou Samad Dieng moom doon bëgg a laaj di doon suñu Balla Fally jaam da ko màtt mu faatu mu wóor ko ne bu ko jëloon ci loxoom day faatu loolu lu am solo la te lu mat a roy la ci ñun ñi nga xam ne eh, yaakaar naa ku ci ku ci amul ndimbal dëgg mën ngaa surux ndax da ngay judd rek ñu di la yëkkati ca kaw naa la yaaram seex ngay gis say moroomi bàyyi yuy sukk ci sa kanam di la jox li ñu am ak say moroomi maam yooyu nag ku ci dund bu wér te yaram bi matut xam-xam bi matut doo xam lu la të te Sëñ Tuubaa nee na gor su set wicc suy dundee aw ñaqam moo mën a jur wàlliwu wàlliwu buur lay jur li ci ëpp ndax ka juddoo ca biir teraanga ja te jànguwut yaruwut buur lay doon buur nag dana jur ku ne ndax day jële fu ne waaw kon delloo siwaat loolu yi nga xam ne ñoom doomi Sëñ Tuubaa ak kawe mënu koo weesu waaye teewul lu nit ñàkk-ñàkk solo boo leen ñu la waxee dëgg boo leen bu waxee dëgg ñu nangu ko ba noppi jëfandikoo ko Sëñ Saaliwu daana wax ne daa daana wax ne daana gone yi daana leen yar daana leen dóoral boppam sax أبين بس ده دور كم سيمسفا سينكوا سباعي ده داود دفلي رمتي يا نكون نم داره منكو دارا يا نيب بام يا روت تدو كتير بيا منكو تايلي موجو أكتر يا كارو لكو باي لولو ماي دخين دوم سينتو باي لنورا روي تنيامله يا نني يا الله فيا لونجيم باي تا دولي نجيم بل أكتوفي أخن جعلو يا الله بير مالهم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله يرجع kon ñu tàllal